dalee nag jàmm mbokk internet yi mbirum Dieyna bi jeexagul de waaw waaw ay secret yu doy waar moo ci feeñ jamono ji laaj bu ñëpp di samp mooy kile di ngóor nekk ci série Adja ndax du bàyyi doom ji ëpplaw scandalu Mamadou Diop ISEC ak Dieyna mi nekkoon ab woykate ci seen petit gàlle daanaka ba léegi jeexagul ndax ay xibaar ay secret moo ci feeñ ndekete yoo mbir mi narul woon feeñ ab nëpp nëppal lañ ko naroon a def rek waxtaane ko mu jeex tàkk waaw ginnaaw bi mbir mi xewee ab ndajeek suuf la nit ñi doon wàcce ci diggante kile di Diop ISEC ak Dieyna Seyna ngir ñu xool nu ñuy waxtaanee mbir mi daal di koy arrangé ci suuf bu mu jëm kaw waaye mbir ma daleen a rëcc palang ba dafa daanu ci suuf li ko waral du lenn lu dul kile di Diop ISEG laata ñuy amal boobu lay gisee ci lañ ko placé sous mandat de dépôt su dul woon loolu dañu koy waxtaanee nëpp nëppal ko jaarale ko ci ab médiation pénale li tax ba boobu lee nëpp nëppal antuwul mooy kile di Diop ISEG dañu ko placé sous mandat de dépôt pour pédophilie détournement a strict te gëm liggéeyam looloo waral mbir mi ne fàng dàcc ci yoon ba mujj ëpp loxo ñi ko woon waaye may leen ma nopp mooy day leen li picc di sab jamono ji bu ñu sukkandikoo ci yenn ci xibaar yu ñu jëlee ci ay jegeñaale Dieyna mi ñu wax ne Diop Iseg daf ko ëmbal moom Dieyna ci boppam daf doon génn ak kilé di ngóor nekk ci série Adja boobu xibaar bu ñu bari umpale woon amaana sax kenn yaakaaru ko woon mel na li am na lu mu yëngal ci mbir mi ba tax ñenn ñi di samp laaj di wax mii lee nekkul ne moom mooy bàyyi doom ji waa léegi ci diggante ngóor ak Diop Iseg mooy bàyyi doom ji jay naa yor tontu laaj bi mu nga nële ca kanam ma seen ndax kat la ca kanam raw li bët te werante xuuxaan tekki tubay tubay joojee ñu koy tekkee mooy ci test ADN bi nga xamante ne nar nañ koo amal bés bu doom ji juddoo waaw kay nañ toog xaar rek wiir wiiri jaari ndaari jërë ngeen jëf